maître Ablaye Wade ca ca d'Ivoire la waxee déclaration ci ndaje bu rëy mu ngi nii maître Ablaye Wade ngi nii. je sant yàlla eh maa ngi am mbégte ak contentement eh, di waxtaan ndax fii ñu mooy forum des jeunes africains forum des jeunes africains eh bien nekk na forum boo xam ne Afrique lu ko di Congo eh di. Nigéria di Burkina Faso di yeneen dëkk yoo xam ne xale yi nga xam ne dañuy xeltu di ay intellectuel ñoo dajaloo ne ma man maa leen doy pour ma defal leen eh bien li nga xam ne moom mooy séminaire ci li nga xam ne mooy la démocratie africaine eh bien comment un président déçu après avoir géré un pays comment il se comporte moom laa doon wax waxtaan ak ñoom ci monde libéralisation adduna waaye journaliste yi nga xam ne eh dañu may laaj ne ma lu tax Karim Wade eh bien ba tey mu ci kaso bi ci laa leen di xamal leen li mu nekk doomu président rek moo tax ñu jàpp ko mais du leen amul leneen loo xam ne eh bien mun nañ ko ko approché mun daam ndax nit ki eh bien boo ko woowee ba def juróom weer ak benn weer muy juróom benn weer mandataire bi dépôt bi dafay jeex da a bàyyi mu dem waaye boo ko tegalee beneen mandat tamit te la ngay seet eh bien gisoo ko mooy wane ne eh sama doom erreur bi mooy qu'il est le fils d'un président moo am nag bépp ça peut se passer dans tous les pays africains le complexe est eh bien des autorités qui qui qui qui viennent après des, des élections et c'est auditer eh bien le chef fils des chefs d'État eh bien loolu loolu du boo xam ne eh bien mooy doon condition waaye na man maa ngi sant yàlla xaalis bi nga xam ne eh bien ñoom dañ ko récupérer ci li nga xam ne moom mooy compte Monaco yi nga xam ne sama xaalis la ñu jël ko dama leen porte plainte état Sénégal pour ñu delloo ma ko ndax fu mu ne nii dama fas yéene tabax ay hôtel waaw Côte d'Ivoire gi maa ngi fi négocier ay terrain pour tabax fi hôtel Ouganda maa ngi fay tabax ay hôtel maa ngi waxtaan ak ñoom Nigéria maa ngi waxtaan ak ñoom ak yeneen dëkk yoo xam ne Libye bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo war a dekkalaat Libye defaraat ko ay hôtel yu mag yoo xam ne dama ko tuddee hôtel Lat Dior Albouri hôtel Saloum hôtel Ndar Géej hôtel yoo xam ne maa ngi koy tabax parce que tamit mënu maa toog nii rek te du ma liggéey barke démb la ma président Burkina Faso yoxosu woo yoxosu woo ma kam ne ma dama càng mun duma dem eh nan nga génne woon ci problème mu Burkina parce que ñoom tamit problème boobu la am mooy dañ ne eh bien euh, moom day dolli mandat Burkina bay bañ ma ne ko fii ngay jaar a ah, fu bëri yoo xam ne maa ngi koy xam man daal maa ngi sant yàlla eh bien di leen xamal ne sama doom nag dina génn ci nii warati na la ndax yàlla dina ko leer man maay Abdoulaye Wade Wade Ndiaye Fara Wade Ndiaye su xuma sa yongu xeer mënoon naa bàyyi rek eh bien mu sonn dama koy bàyyi mu ñam àddina lii yëpp maa def premier wu wane na senegal benn bopp la kenn mu ko xar ñaar waaw danaa tabax ay hôtel tabax ay yu yoo xam ne bien danaa ko def waaw su ma neexoon nag ut armée waaw ndax am na ñoo xam ne pare nañ pour dee pour sama sama doon waaye du ma ko def neexoon def comme président africain ut ay missile ak ay rebelle ndax foo woote xale yi fekk la waaw waaw sant waaw lan ma barkeelu ci rek pour wàll ne ba tey mun naa dellu si dara newu ci nag dara newu ci nag waaw ma barkeelu ci rek waaw barkeelu ci rek barkeelu ci rek barkeelu ci wàll ne ba tey doole gang bi waaw dara newu ci